parce que ñenn ñi moom tàngal ci rajo yi lañuy def mais fas yéene wu ñoo tàngal ci bitti. waaw parce que ñi nga xamante ni bii ñoom fas yéene ñoo def seen manifestation. waaw. Euh, gëm naa ni dinañ def seen manifestation parce que bii yoon préfet amut lu koy waxoon naa la bu repassé ne la préfet. Mhm. dafa yokkal gars yi publicité. pour ñu gën a mën a préparer. te Sonko daa am daa yónnee lu foofu. ni ko filmé na barab bi waaw. non xam nga waxoon naa leen ko. ne leen il faut ñu def. <laughs> émission boo xam ne waaw ah. gis nga ni ñu bokkee xalaat foofu. waa si dafa <laughs> yónnee lu foofu. te yow nee nga woon sur la place ñun dañ faa war ñu dem fa def fa émission xool. xam marche bu fa am. waaw xam nga si si il faut ñu def pour wane. waaw mais parce que xamoon naa ni. Mhm. dara du fa am. daanaka te loolu baaxut. wallaay wallaay tere na ndax lii. waaw loolu ñu kii ko gis nga ay caaxaan ne fa. Mhm. loolu vraiment nekk na loo xamante bi jaaduwul. bi la yoon nag man gëm naa ni. dina am euh, dina am. bu ñu leen may bu ñu leen may. Euh, non danañ leen may parce que ñemewu ñoo bañ a may parce que yaa jàpp naa ne. bu fekkee ne bëgg nañu réew mi dañoo défier préfet. mooy boo ñu joxee boo ñu joxul dañuy dem. waaw parce que tamit pareen saa il faut nga wañ loxo waay gars yi. ah parce que kaay ma wax la nag. Hmm. depuis xam nga loolu mooy li garaaw ci réew mi. Hmm. léegi réew mi dafa toll foo xam ni. waaw mbir wax ju neex diplomatie mayeetu fi dara hmm. léegi fuqar ci moom mooy maye te loolu mooy li garaaw parce que bële passé parce que bu fekkoonte ne bi demandé nañ nag ñu joxoon leen hmm. amul problème fi mu toll nii mbir mi romboon na jeex na hmm. comprendre nga si mais gis nga ñoom ñoo ko téye ba fii waaw diggante bi waa kii joxe nañ fi seen décision comprendre nga discours yi xam nga ne dana gën a changer dana gën a loolu donc lii lépp ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi ñoo ko def beneen camp bi nga xamante ne bi nag ñoom nee nañ xam nga di jóg ci jógu jàmbur loolu moo dut yoon ah, waa ji bu génnee ma génn booy def sa manifestation defal sa manifestation dañoo bëgg a wan ni surtout Bamba nee na ndakaaru ku fa ñëw di def yooyu dinañ fudd sa ndigg ba nga tàlli moom bu doon moom ak moom kese la waaw mënta fudd ndiggulu kenn <laughs> ay yaa ngi dégg wax na de <laughs> nee na ay góor ngeen ay góor <laughs> lañu waaw loolu moom ku koy wax ku ne soo ngóor a war nañ koo seetaat di jàkkaarloo nit ñi naa la góor nga góor laa ki nga ko wax moom góor la. waaw ah, yow moom sa bos bari na yaa ngi delluwaat sa bopp kii quoi. Ah, comprendre loolu mooy li nga xamante ni mooy li ne. Ah, loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ne. en tout mm-hmm. cas kon daal looy wax préfet. li may wax préfet daal mooy. mu autoriser leen. Mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ne mi ngi jéem a wax ne dinañ ñëw troubler. waaw mu ne leen toog leen ba beneen yoon. loolu rek mooy li nga xam ne moo fi nekk na autoriser ñii ñu dem organiser seen manifestation les autres comme que waxoon na ko ñii ñii toog ñu xool ndax ñee ñoom bu ñu leen waxee ñoom danañ toog wala dañuy jaay doole hmm. parce que waxoon na ko ñii bii passé ne leen dafa am ñu demande waaw bés bi hmm. yaa ngi dégg hmm. ñii daa dee toog waaw daal ne d'accord jàppaat beneen date ne mercredi kon waaw léegi préfet na leen jox léegi nag ci biir mercredi bi am na ñeneen ñoo xam ne moom amuñu date dañuy wëndeelu rek ba miir gis nii ne fuñ jàpp ñu ne fii lañ jàpp ñu ne ñu ne fa lañ jàpp di génn ci génn jàpp ñooñu nag ñu woo leen bañ ñëw ne leen he mm-hmm. bu leen fi yëngal dara mm-hmm. donte sax xam nañ ni mënuñoo yëngal parce que ki nga xamante ni kii ngëm-ngëm a koy génne ak ki koppar di génne bokkuñ non ñi dañoo gëm dañoo gëm benn koppar di génne mën naa xëy wëlbatiku doonaat sa pire adversaire waaw parce que këlay génn ndax koppar la ko dal yaa ko teg ah. waaw parce que tey jii ki ngay jox cinq mille francs ngir mu dem mm-hmm. bu amoon liggéey bu normal Ah, du jël cinq mille francs naan ma ngay dem ci sa ki ya ah, ki ngay jox ay trois mille ak yooyu hmm. muy ñëw de naan dalay yuuxule hmm. bu amoon liggéey bu normal du ko gi kon yow mi koy jox trois mille yooyu hmm. boo ko wutaloon li ay liggéey ca lay gën a mën a taxaw donc il faut que ñu xam loolu ko waaw macha allah kon mi ngi noonu dinañ ci euh, dellu siwaat jombul fii ak suba lépp dana dana dana dana gën a leer xam naa ni daal am na ci ñoo xam ne ci génnub jàmbur la ñuy génn muy ñu fas yéene génn bàyyi génn jàmbur yi waaw ah, te génn seen génn. wallaay wallaay ñoom nag dafa mel ni bu ñu génnee seen génn du am xorom. léegi nag il faut que ñu wut xorom ci wéeru ci nii. ne ñii wax nañ ginnaaw bu ñu wax nañ bi bisoon ko waxee ku wax ñu maa wax ne maa tontu. dégg naa ci kenn ci ñoom sax ku ni. Hmm? bis bu déggaatee Ousmane Sonko bis bu yëkkatiwaatee kàddoom daan ni euh, président Macky Sall soo deful nangam ñu fekk la palais. waaw na moom dina dajale nangam jeune. Hmm. fekk Sonko fa mu toog yeew ko ba mu dang yóbbu ko yóbbu ko kaso. Hmm. li muy wax noonu. kooku li muy wax noonu xam nga <laughs> xam nga nag Sénégal la dafa bëri ay comédien non nee bu ci yoon waxul dinañ dem fekk Ousmane Sonko fa mu ne yeew ko ba mu ba mu tàgg hmm. ñu yóbbu ko moom ci boppam moom moom bu defu ndànk moom la yeew parce <laughs> ay ay ñooñu rek ñu leen di tëral macha allah jërëjëf kon alaaji ñu daal dem ci élément bi Walfadjri à Thiès 88.8. jaa ngeen jëf waay Walf Thiès boutique solution moo may émission bu am solo bi la nga xam ne mi ngi jaay lépp lu jëm ci ndoxum siti hémorroïde kattan ak autoroute bi Walf Thiès léegi alaaji ah kon ñu dem directement ci élément bi waa ji lan la dund ginnaaw bi oto bi filee soxnaam.